ak la nga xamante ne moom la yaakaaroon moom ba fa tegoon mu mën ko mën a def mu nekk lenn lu mu ñaawlu lool ci lenn ci ay wax leader yi nga xamante ne jot nañ ko wax ci wàllu euh, mu mel ni dañoo war a xaajle euh, askan wi di wax kenn ku nekk ca la mu bokk ak ca la mu bokkul te ñun loolu xamuñu ko ndax réewu Sénégal benn bopp la kenn mën koo xaar ñaar donc mu mel ni benn lump nit li rek yaram nit la boo xamante ne bu fenn méttee fépp daal di yi ci ñëpp askan wi yëpp daal di koy yëgandoo Sénégal gépp daal di koy yëgandoo donc ci région yi kenn mënta xaaj le ne kii ci lii la bokk kii ci lii la bokk rawatina ku nekk ci tund Bignona nga nar a xaaj le ne man Fogny laa dëkk buluf sama yoon nekku ci wala jiraagoon sama yoon nekku ci wala kalunaay sama yoon nekku ca wala Fogny Kombo sama yoon nekku ci loolu du wareef du taxawaay boo xamante ne nitu tund war na ko mën a xalaat wala mu di ko wax kenn ku nekk la nga mébét yow loolu nga mébét la nga yaakaar loolu nga yaakaar mais nga wax ak nit ñi loo xamante ne bu ëllëgee mu bañ a nekk gàcce di la topp waaye mu ngi koy ñaawlu lool ci yenn ci ay wax leader yi nga xamante ne ëllëg ak si biir day nekk gàcce ci la nga xamante ne moom nga waxoon buñ la ko tegaloon ci biir askan wi da nga naan déedéet est-ce que lii man maa ko waxoon donc loolu yëpp jaru ko waaye moo tax kilifa baa ngi ciy wax ne kenn ku nekk na bàyyi xel lool mu xam ne ñun ñëpp benn lañu xaajale boobu nga xamante ne ñaa ngi koy xalaat ci wàllu politique mu ne loolu amul benn njëriñ ba tax mu teg ci ne bëgg na ne incha allah ëllëg bu jotee ñun ñëpp ñu dem wooteendoo alors euh, dikk waaye ñi bañ a dugal loo xamante ne du lu gën ci wàllu sànnante xeer képp koo xamante ne yow sos nga fii loo xamante ne muy wàllu fitne wala nga yëkkati sa loxo di sànni xeer kenn na la wóor ne loolu nga def ne ñun ñëpp danañu ñaan jëm sa kaw ngir loolu nga xamante ne moom nga yéene woon ñi nga sànni xeer wi loolu lépp dellu bi si si sa bopp donc kenn ku nekk nga bàyyi xel mu ngi ku nekk boo xëyee ëllëg di dem woote ji defal jàmm ci sa bopp nga dem woote ji ka nga bëgg nga dellu seeg jàmm ñëw nekk sa kër yàlla moom fal na ko muy fal ba pare donc ñun ñi nga xamante ne xamuñu lu lëntëj li nga xamante ne ci borom bi la ñun nañu bàyyi xel am xel am dal am yar ak teggin ñu bàyyi ba nga xamante ne moom la yàlla jox ba ñu annoncé ne diw moo gañe kenn ku nekk lépp loo mënta mën a def ci euh, euh, mbégte nga mën koo mën a doxal donc mu ngi sant ñëpp mu ngi dokkeel ñëpp euh, di rafetlu euh, taxawaay bi di wax ne ëllëg incha allah yal nañ ci yàlla yeggaleeg jàmm ñu dem ci jàmm dellu si jàmm te Sénégal gagné ñun ñëpp ci Sénégal la bokk incha allah ku nekk wute woote nga dem ñibbi sa kër mu ne bu kenn taxawalu fenn kenn ku nekk boo jógee sa kër wootee la tax a jóg demal nga woote ji sànne ki nga bëgg nga dellu si sa kër ak jàmm ñi xaar résultat yi boo jotee résultat yi loo mën a وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بلمكم أن الصلاة لمتي نصلي لبر محمد صلى الله عليه وسلم كيوم بكان كانوسا wallahi an awmaŋo mi wote bare mi te woni feju la je mbe juma e ban ni feju feju ko député ke jumen ne man feju mi ko mera ke jumen eno pane po pofana manu ya lenya la président présidangawe e jumen sun su san sumutuna anosan umang o mamman o bare mi te woni mang mi wallahi e sene mi man seyola ne man mang me eno oto anosan sanu jawmi be wote ya hani an wosangi ya nyora toboji yat nu nyak kekam na ki ya jak mampo beti nu betinu beti nu je karta gi ya manule yu be sindei jak be jonde woro ngaw mampo la ko kajelor yikenu me jaay gi ya yikenu wote ya lo mangile ano samban mangaminu jaw sen manule bagi mu ke be po fanaka e jaw mampo fanaw lako jibom jake gi lebo rak dak ba de da be kawata yak kaatu wala re e jaay ki lebe kawata yak yo nyikul anuma anu anude mbe so fayni waje o weelo ehe ni ñikkol no yale be jaw be tan o sanno jaat ñikkol ñano manje manjitaji taje mbe loye manjitaji taje mbe kayita ko nak nak nak tabarakallah jalo no no me ano san ka karora kiya ko no ko wara mi kuriŋe eno bare jaagi betenol karta wol la no san bisinde sindayola dak ma kurforne an an dak majelan kaji tuor ka ce ku leto wala rere binyona dare bagis nak nak ume ala afula uma manding uma jola uma kana ma burumala to dare dare wala umusta umanya yo kapajilo rere oto nakano sana jawmi umanji mata jawmi hani anana manji mi nakata na siraka jabe tentata au au dike yoli manulayu jola ko uliko kure safu